dalee nag jàmm école bi waaj a ubbi moom la yéene kaay yu bëri yu nu xëyandoolu ubbee seenu xët subaka tey le soleil national ca la bokk journal bi ne année scolaire 2023 2024 njiitu réew mi di président Macky Sall li mu bëgg moo di atum njàng mu mucc ayib lépp tolloo lu dul am xaj ak seen l'observateur ne moo tax ba ñu amal ci niki démb ab conseil interministériel ilimaani jëwriñ yi di Amadou Ba moo ko jiite fukk ak juróom-ñetti dogal yoo xam ne daar daar dañ ko war a lijjanti moom lañ fa jël journal Futur Média bi ne waaye xel na ci syndicaliste activiste yeek waajuri ndongo yi jëm ci école yu inondé yi jàngalekat yu manqué yi table banc yu matul source aane Cheikh Omar Anne mi jëwriñ gi ñu dénk njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi wax na ba wax fa mbir ma toll tribune yéene kaay mel ni ko naan weesuwul waxi gàcce ndax liy dëgg moo di ne école bi ci boppam moo sa ngéem te li ci doy waar moo di ne dugal nañ ci juróom-ñetti téeméer ak ñetti milliards te ba fii ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti école kenn mënu koo jëfandikoo juróomi fukk ak ñett kenn ko ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar amuñu ndox téeméeri école ak juróom-ñett fukk ak juróom amuñu courant enquête yéen kaay ne loolu nag mooy faaf te itam lim bi doy na sëkk ngir tiitaange am ci njàng mi gàllu góose journal l'info moom tension bu rëy la gis ci ubbite njàngum ren gi ndax ne li nguur gi jël ciy dogal dafee fekk jafe-jafe yu ko raw les écoles ne li ci gën a doy waar nag moo di ne ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñetti école yoo xam ni ba fii ñoo ngi wéy di tëmb ci ndox mi te am na ci ay école primaire ay collège ba ciy lycée Sud Quotidien moo tax ba nguur gi taxaw temm ngir andi ci ay saafara jël fukk ak juróom-ñetti dogal dogal fi nu war a gaaw jëli dogal ba lay béy di wéy mbuusu moo di ca port bu ndakaaru évidence ne collectif ga ëmb acteur portière ya nga xam ne lu gàtt-gàtt juróom benn kuréel ñoo nga ca mu ami commerçant transporteur ba ci transitaire ñoo jël dogal ne lu ko dale altine bii nu jëm dañuy banque seeni loxo dunu fas te xànc ak moroomam ndax ne la leen metti bare na te ba fii direction ba wuyuwu leen joxu leen sax cër tax yéenekaay bi ne mbii cook mbaaloo am na ca port autonome bu ndakaaru feneen fu mbii cook mbaaloo am moo di ci diggante Wave ak Poste Finance yéenekaay mi ko wax wax na la ko waral journal bi ne lu ëpp ñaari junniy milliards la waa Wave di laaj poste finance gi nga xam ne jamono ji dañoo nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe dëgg fi mu toll ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar la amee ndax ku nekk dangaa bëgg jël sa yoonu bopp L'Observateur ne moo tax ba seen njiit di président Macky Sall la ñàngal na ci Vox Populi moom njiitu réew mi mu fay artu ne bépp candidat bu jël sa yoonu bopp yaa dàqalu sa bopp ci Les Échos président Macky Sall ne Amadou Ba moom la tànn mu nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ko aw feneen génn nga ci bii coalition Vox Populi ne ba fii nag Mame Boye Diao Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne ñoo jël seen yoonu bopp évidence ne lu ci mën di am daal lëkkaloo bi nar a dox ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne nekkul lu nar a baax ci Amadou Ba las yéenekaay moom xëy di jàngata taxawaayu Mahammed Boun Abdallah Dionne Les Échos ne lu ci man di am daal président Macky Sall moom ma ngay artu di naan bés xoolee ba ñàkk nguur gi loolee moom kaawteef mënu koo weesu yàgg bawul dara nguur gi fi nekk ci turbine Papa Djibril Fall ne lii dëgg moo di gouvernement bu Amadou Ba ci boppam dañoo lajj ci les échos mu dàbbali fa di naan ilimaani jëwriñ yi di Amadou Ba sax dafa war a tekki ndombal tànkam tey saako nag élection yi nu dëgmal ba ci parrainage bi lépp ñu jaarale ko ci yoon ndax ne moom day laaj ci réew mi réew mi ñu koy laaj ci bari na Walf Quotidien ne loolee nag moo ko ëlëm tax mu xëy di ko càmbar ab xeltukat bu mu ci dalal di naan ko mbir la moo xam ne am na lu làqatu ca gannaaw li làqatu ci diggante Sala Sow ak